Assalamualaikum wa rahmatullah sama TV ñu ngi leen di nuyu di leen eh, ziar bu baax eh, j'espère que yéen ñëpp ngi ñun ngi sant ñu ngi eh, ñu leen ngi seen programme plante de la semaine garabu niim moom la ñu fas yéene professeur ginnaaw bañ la nuyoo ziar la garabu niim lañ bëggoon xam ay njariñam ci wàllum wér-gu-yaram ak niñ koy utiliser pour mën am ay résultats السلام عليكم ورحمة الله سيدنا محمد رمضان الجزائر بمشي نومك وكانت لك alors ni ko ni moom xam nañ ci émission bu am solo. yoo xam ne après ginnaaw bi pour ñu contacté la woon. tey nag mu leen ñëwaat pour fàttali feddaliwaat émission boobu. comme ni ko waxee ñu am da ngay mhm. tawee. Mhm. Eh, eh, eh, mhm. Mi émission yi passé mi ko jot a seetal. mais nii moom quoi dafa bëri njëriñ ci ñaari mi yëpp comme ni ko waxee woon. ci mm-hmm. côté médecine ci wàllu faj mais ci côté économie mm-hmm. ñaar yëpp mm-hmm. euh, ñun Sénégal dañ ko dañ ko dañ ko xamul parce que ñii moom dafa naa bëri bëri wuñ njëriñ ci maanaam garab bi ci moom bëri na njëriñ mais jëriñoo wuñ ko ñëpp dañu koy bàyyi nii rek parce que garab bu ñii moom boo xoolee daal ko boor sànni rek xam waaw amul leneen luñ ciy def yaakaar naa xanaa nga soxla ay bant yooyu ko mais à part ça soxla duñ ko utiliser. mën a faj nekk lu bëree bëri bëri. ba demee fu mel ne Inde produit cosmétique bëri à base de niim lañ koy def. donc tey exemple mën nañu wax ni bu ko nekk bureau bureau bi rek waa mu xaw a daal te mel ni. yenn dëkk yi ay quinze mille vingt mille franc lañu lay wóññi. Mhm. am nañu ko yaay sax léegi trente mille franc lañu. Mhm. Euh, ñun fii daanaka duñ koy faral di exploité. te doom yi rek ngay defar di defar garab mu jox la ñu ne nii. loolu bari na Sénégal bi yow la. Mhm. les pâtes dentifrice yi nga xam ne dañ koy utiliser bari na ci yoo xam ne à base de lii lañ koy defar. yi nga xamante ne ay saabu la mu nekk saabu yoo xamante ni mën na. affaire dermato mm-hmm. wàllu picc wàllu góom yu demee noonu mm-hmm. euh, saabu nii am na mën saabu mm-hmm. nii ba pare ci wàllu karaw aussi euh, mën na xeex karaw bi na éviter euh, mën na maye karaw bi mën na dindi karaw bi ruus mën na maye karaw mën na ko defal ay shampoing yu demee noonu baax lu ci wàllu karaw ci a lait corporel mu nekk dafa diwu yaram boo xam ne a à base de ñuul lay nekk te loolu aussi day nekk loo xamante ni c'est antiseptique lay nekk nga xamante ni day anti moustique moustique mooy loo xam ne day dàq Afrique yoo dafay bari te yëpp mën na jël produit base de ñuul lay nekk mën na mën na mën na mën donc mën nañ see fat ay engrais engrais naturel mhm. engrais mën ay engrais mais mën ay pesticides maanaam loo xamante ne day xeex gunóor yeeg euh, récolte yi pour nga am récolte bu baax sa tool mën nañ ci defar pesticides yoo xamante ne dina rey attaques yi yu mhm. mhm. produit naturel la nekk mën nañ cee defar tamit ay produits yoo xam ne contre nématode la nématode yi nga xamante ni fekkee ci nit ki day bàyyi yooyu mu a yàq suuf si donc ñu mën na ko ci côté cosmétique côté produit a defar moom mhm. daal ni ñu nangu làmboo ndax bu ñëwaatee ci deuxième phase bi ñu donc garab la boo xam ne nag waaw doonte weex na waaw mais mën na bare bare bare réew mhm. mel ni Inde lu ni suukar muy jafe donc di ko di ko di ko naan mhm. wàccee mhm. ci wàllu faj mhm. baax na ci cible sabolisme moom ci trop bu fekkee tamit ci ci baax na soit di naan wala nga jël ko takk ko teg ko takk ko ay muutu métti bu fekkee ci wàllu lakk-lakk la ay ci wala ay waaw moom it bu fekkee ne nit ki am na sunguf bi mhm. sungufu xob yi wala sungufu doom bi mhm. di ko ci def aussi yàlla da koy saafara hmm. donc doom bi doom bi boo ko defee sunguf mu ëpp doole sungufu euh, xob mhm. doom bi bu la neexee weer ko woo waaw lépp ko def ko sunguf boobu moo ëpp doole sungufu xob bu fekkee ne xob bi nga soxla moom mën nga ko jël dafa def ko sunguf siamo gli ombrelli, che tu hai allo sabato la mm-hmm. eh, mm-hmm. che non è meglio fatto e fazer quando for de passar o fake engine igual o caridade que é mas não me leva por isso se dá me a me lembro que ele que me gosta de não garanti bantuni bantuni que gosta de o fake engine me leva um pouco bom bom robar ele é bom robar o fake engine me leva um pouco melhor se dá me dobro percorso ufukoti ukotetayibamo yalondola basaba faculty yendo yabe niyo aitin sembo bila ni bafate bafate mama kulame khom do do ba bomba wala se ki bokku yi te yoy mën na dem wala mën na dem yalla mën na ko sa faculty ni nga xamantene dañu am liggéey da manam seen gëdd baara bi dañu jeex mom suñu boobu suñu football bi surtout. waaw ko ci tey. Mm-hmm. mën na yàlla mën na dem ba. ñi nga xam ne amee yaram yi wala gaal. Mm-hmm. am yaram yaram dafa def nga ko ci yooyu demee noonu. Mm-hmm. ñu amee xob yi tamit. parce que jàmm benn mën nañ jàpp di ko sangoo. waaw loolu jël suuf di ko ci tamit parce que yàlla mën na dem ba saafara loolu. bu fekkente ni ay taab la aussi la même chose. noonu la koy saafara donc. bëri na yoo xamante ni lii mën na ko am. Mhm. mais man gisaguma benn yoon ñu utilisé woon Sénégal di ko fay. Mhm. léegi nag li ci des mooy li nga xamante ni recommandé wuñ ko ci ñun. Mhm. produit la wax dafa wex. waaw utilisation bu yàgg bi baaxul ci foie. baaxul ci wàll. maanaam koy utiliser tamit ci wàllu naan daanaka utiliser daal damaa fekk daal utiliser wàllu waaye waaye mais kenn du utiliser prolongé ko. naan koy yàgg. ci des tamit mooy dose yi nga xamante ni moom la ñu utilisé. Mhm. mu nekk dose yu ah, xool wala boo koy a jugee a rax mhm. ba mu oyof am na lu weex nga naan. Mhm. loolu aussi dina ma ki nga xamante ni moo ci a faru mais loolu mooy li nga xamante ni eh, ah, ci ay macha allah loolu <laughs> amuñu duñ ci teg voilà comme ça ñu lay remercier am na solo macha ñu lay bàyyi nga tàggatoo. suuf daal ñu ngi lay nuyu